maa ngi leen di seedeel ñi ma bokkal service muy oustaz Ndiaga Seck sama jarbaat oustaz Assane keroog pénurie essence dafa am am ku ma woon ma doo dem jëndi essence nit ñaa ngi rek essence ma ne leen man damaa am wàll yi nettali naa ko ci station bi fii man leen dama am wàllu ñu ne luy loolu ma ne leen damaa nekk ak Assane Seck ñu génn mu ne ma bul dem xaar ma taxaw xaar ko mu rempliral ma sama oto ba mu fees ak carburant yëkkat ci alal ju bëri ci enveloppe jox jàdd ak man ci jaaykat ba am yu mu jënd jox ca suba sa nit ñi di xëccoo carburant looloo tax ma ne leen dama am wàll yi te loolu mooy yi ma yi mujj yi mujj loolu mooy sama digganteeg Seyda Fatou Bintou mooy sama digganteeg Oustaz Moustapha mooy sama digganteeg Oustaz Ndiaga moo tax du leen wax du ma leen sant du leen gërëm parce que lu ma leen wax ci sama bopp laa koy wax yàlla leen yàlla fay yiw ci yëg gi ak sa ak teral ñuy dund ci jamono jamono bu nga xam ne dafa am ñetti as ñetti crise ñetti crise bii crise yu yaram beneen crise bi crise u poos mais ñetti crise yii yépp lu ko sabab azma axlaaqiya azma sixiya ak azma maaliya ñetti crise yi yépp lan moo ko suñu laajee lan moo ko waral dinañu wax kan moo ko waral lan moo ko waral ah nee ma sama papa mi ngi ci biir mbooloo mi sama papa daaw dem miin directeur dans le mine ñu koy nuyu bu baax di la ziar ela gàttal naa ko de suñu directeur El Papa El Hadj Daouda Mine ñu koy nuyu di ko ziar ñun ci mbooloo bi tabarakallah xale bu bëgg diine bu am diine macha allah yal na ko yàlla fay yiw ñu koy ziar bu baax a baax ñetti crise yi ñoo ko waral lu ko waral mooy doomu aadama ci boppam. moo indi ñetti crise yëpp lu mu ko indee mooy ñun ñëpp ci àdduna bi ñuy dund ku bind àdduna bi mooy sunu borom moo nu bind ñun ñëpp mais dañoo bëgg seppi loxo yàlla ci àdduna bi moomal ko sunu bopp kenn ku ci nekk am nga sa waa xam ne moom nga féetale àdduna bi